bi dafa cher. dund bi dafa cher. askan bi sonn nañ. askan bi sonn na. askan bi sonn nañ. askan bi sonn nañ. dund bi dafa cher. dund bi dafa cher. askan bi sonn nañ. askan bi sonn nañ. dund bi dafa cher. dund bi dafa cher. askan bi sonn nañ. askan bi sonn na. dund bi dafa cher. dund bi dafa cher. waaw confédération des syndicats autonomes CSA dafa lëkkaloo en tout cas woo liggéeykat yëpp woo central syndicale yi nekk ci Sénégal yëpp euh, ñu ngi remercier ñi ci jot a ñëw ñu ngi remercier ñi nga xam ne yónnee nañ ne am nañ fi ndaw euh, objectif u tey bi moo nekkoon CSA accompagner liggéeykat yi accompagner population yi gunge leen ci nan la ñuy def ba dund gu cher gi wàññeeku ci suñu réew nan la ñuy def ba li nga xam ne gouvernement bi wax na ne jot na ko def ci wàññi jëg yi ñu gis ko sur le terrain maanaam ñu appliquer ko sur le terrain nan la ñuy def ba centrale syndicale yi lëkkaloo ak association de consommateurs yi pour que décret yi nga xam ne moo doon fixé prix yi ñu xool nan lañ koy euh, réviser nan lañ koy càmbaraatee ba mu permettre ñu jël préoccupation prix yu bëri parce que bu ñuy xool même prix yi ñu wax ne moom la ñuy appliqué sur le terrain loolu amul li ci des nag mooy nan la ñuy def ba liggéeykat bi fu mu nekk liggéey bi mu am mu mën ci suturla mu mën ci gis boppam bu feebaree mën a faju mu am retraite décente mu mën a am euh, prestation familiale yu jar yoon mu mën a am euh, une IPM prise en charge boo xam ne bu feebaree mbaa njabootam feebar ñu mën leen a jël en charge. et loolu dañu gis ne am na secteur yu bëri def fa na sax boo xoolee lu mel ni BTP batiment travaux publics da ngay gis ne amoon na loi bu euh, arrêté bu gouvernement du Sénégal jëloon en 2008 permettre entreprise yooyu ñuy jël ay liggéeykat di leen def loo CDD léeg-léeg pendant trois trois ans quatre ans cinq ans dix ans même liggéeykat bi mën na fa nekk. chaque trois trois mois ñu changé ko defal ko beneen euh, contrat donc yooyu lañ ne dafa war a jeex ci suñu réew mi loolu mooy appel bi nga xam ne mooy ñu dajaloo yuuxu loolu fexe ba toog ak gouvernement bi loolu yëpp ñu jëm ko fi jëlee loolu mooy suñu préoccupation tey waaw président de démb woote na ne dafa bëgg a gis euh, secteur général quatre centrales yi gën a représentative au Sénégal Euh, yaakaar nañ ne ñun tey dañu am marche bu ñu jógee fii dina fekk ñu jël yeneen préoccupation yoo xam ne day dolleeku yi nga xam ne xam na ko ba pare bu ñu demee ñu jàkkaarloog moom yeggee ko ko laaj ko ci ay solution loolu moom jàpp nañ ko tey. yaakaar naa ne yeneen aspect yi bëri na parce que comme ni mu ko waxee léegi wax nañ waxu inondation yi réew mënul nekk ci réew chaque année ñu ne la def nañ ay milliards pour mbënd dootu fi am mbaa bu amee. dinañ ko maîtriser duñ ko maîtriser dañuy def ay milliards liggéey yi du yegg ñu ñëwaat ne dañuy defaat plan Orsec pour xeex loolu d'une manière ponctuelle yàqaat ay milliards. donc yaakaar nañ ne yooyu yëpp dafa laaj ñu toog ak autorités yi ñu mettre en place ay dispositifs yoo xam ne dañuy liggéey liggéey bu permettre ñu éviter di de prendre à zéro chaque année et di defaat xaalis boo xam ne xëy na. buñ koy yaxanaloon dinañ ko dugal ci prix yi ñuy wax ni dañ koy dugal ci taxes yi ñuy yokk wàññi taxes yi pour que prix yi mën a acceptable pour population